dañu ne siiw rek corona bàyyi ñu euh, su ko defee tamit kenn ku nekk rek mën a dellu ca la mu nekkoon ah. sant gërëm jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi fépp fu ñu waaye mën di dégloo moo xam ca biir réew mbaa ca bitim réew ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye tamit euh, di la wàccee bu baax a baax ci sag wàccuwaay boobee nag bu ngeen ko déggee rek mooy ne jotaay gu soxal waxtaani wàllum wér gu yaram daal dinay door ci Alfayda l'international Alfayda la référence Ngoné Ndiaye Reine madame Kandiadu ngeen di euh, teewlu waaye tamit nag jaajëfal ko bu baax a baax moom Wally Massa Seck ci wàllum xarale gi Mouhamadou Khalili ci internet bi ak Hadji Libaas mbay waaye nag di wax ne saa su nekk nañu koy defee rek ah di ànd ak i borom yi xam-xam moo xam acteur de développement yi wala itamit kilifa diine wala itamit kilifa aada lu mu ci mënti doon rek kenn ku nekk jamono ji am na jéego yooyu def mu ñeel jàngoro ji di coronavirus tey jii nag ña nga ànd ak benn mouvement boo xamante ne kenn dootu ko présenté muy nag mouvement Kaolack Set Wecc ñoom itamit nag jamono ji may àddoo ngeen di teewlu ñu ngay bay seen ak laaj nak ci mbir mi ma ànd nag ak Baboy ñu koo xam itamit ci Baboy yooyu waaye tamit di ànd ak ki nga xamante ni moo di euh, monsieur Thiam ci bi la jotaay du def lu dul kenn ku nekk rek ma daal di lay bàyyi nga daal di présenté wu waaye tamit daal di nuyoo ci Alfayda l'international ma njëkkee ko ci baabo yi sant yàlla bu baax a baax gannaaw ba ñu amee mbégte contentement tey ñëw fii mm-hmm. man maa ngi tudd Amadou Tidiane Lo. Amadou Tidiane Lo ñu gën ma xam ci Baboy. Hmm. nekk ci membre Kaolack Set Wecc. daa mel ni Baboy bi moo gën a siiw de. waaw Baboy bi moo gën a siiw Kaolack moom Baboy lañ xam. waaw Baboy lañu xam. Hmm. d' accord euh, mi ngi noonu euh, mbokk yi di wax ne nag jamono ji ca kanam rek xam naa ni tamit comme nañu baaxoo di ko defee saa su nekk ah, ah, dañuy fexe rek kenn ku nekk yi tamit ñu bàyyi la nga wax li nga xamante ne yi tamit moo di sa xalaat ci mbir mi waaye nag ca kanam lay doon lu may loolu yi tamit nag Ibou Thiam mi ngi ci bile jotaay moom itamit ah, bokk ci mouvement Kaolack Set Wecc monsieur Thiam maa ngi lay bayi nga daal di ci l'international. Ngone Ndiaye. madame Kan. Mm-hmm. Mm-hmm. ñi ngi rafetlu euh, invitation bi di euh, nuyu le directeur de alfaida monsieur Gay. Euh, di rappeler que alfaida suñu fierté la. wallaay. <coughs> ñun Saloum Saloum. Mm-hmm. di nuyu madame le maire Mariama Massar élu yépp conseillers yi responsable femmes jeunes sage cadre délégué de quartier président CCQ population yi ak auditeurs yi ak auditrices su Alfayda. Mm-hmm. ayca mi ngi noonu Ibou Thiam nuyu bi nuyoo bi rafet na waaye tamit nag daal kam na mu ko defee ah, kuy dugg ci buntu nag da ngay fëgg waaye tamit daal ñi nga xamante rek jamono ji ñoo yor nag kilifteef gi ci gi xam goor nord ba ci préfet waaye tamit di nuyu bu baax baax madame le maire ah, Mariama Sarr jotaay bàngoog nag ñu daal di ah, comme na ma leen ko junjee sànq jamono ji mouvement Kaolack Set Wecc ñi ngay bu am solo ci lu ñeel nak jàngoro ji di coronavirus la ta lolu sax nak fekk na leen ci mbir may tibitan ah, ñu cey béy wax bu ama ama am solo euh, dama jikke nak ci euh, Ibou cham mu melni ki nak la faral di wax lu lu ne am na lu ko yëngal wala ñu ne sax la ko yëngal moko ëpp do ëpp doole euh, mouvement Kaolack Set Wecc ci lañu wax lu tax pourquoi le concept Set Wecc ndax mën nañu ko xam Euh, merci euh, Ngoné pourquoi Kaolack Set Wecc ci question ba nga xamante ne dañuy sawar ci tontu ci parce que euh, madame le maire Mariama Sarr ci ayam dafa am la nga xamante ni daf ko jot a seetlu. Mhm. que doomi Kaolack euh, dëkk bi daf leen gën a soxal daf leen gën a intéressé. Mhm. ñu gis ne chaque semaine pratiquement dafay bëri ay demandes euh, en matériel d'assainissement. Mhm. mu ne man nag war nañ mën a ànd war naa mën a ànd ak samay ndaw ak samay ñooñ ak képp ka nga xamante ni. seetu Kaolack intéressé na la ñu dem fekki population yi ci liggéey boobu ñu nekk. Hmm. de ce fait mu ne pourquoi pas ñu def benn concept bañ ci waxtaanee ñu xaatim terme de référence yi euh, contextualiser ko justifier ko mu génnee Kaolack set wecc madame le maire moom moo ko initié. Hmm. ñun ñuy ay ndaw ya nga xamante ni Kaolack moo ñu intéressé ñu ne nañ chargé wu ci opérationnalisation concept boobu. Mm-hmm. àdduna daanaka lu fi mës a sosu rek. Mm-hmm. lu fi mës a dox rek dafay am idéologie. day am ci cela yi. Mm-hmm. alors mu gis ne participation citoyenne dafa gën a am doole. mu gis ne ndaw yi ñu ngi gën a yëngu ci seen i gox ak i gox goxaan. Euh, mu ne nañu ñëw ñu nit soobu ci liggéey boobu. Kaolak Set Wecc juddu ñu lancé ko le 13 euh, juillet euh, de 2017 euh, këram euh, ci kër euh, ci koñam mhm. def activité officiellement euh, Nangaan le 22 juillet alors Kaolak Set Wecc nek nek concept ba nga xamante ni amul dara la nga xamante dañ ko ci politiser. Mm wala jël benn obédience ba nga xamante ni dañ ko koy takkal wala benn étiquette bu koy pour ce faire il faut que ñu informer autorité administrative mais aussi euh, jaar ci conseil consultatif de quartier informer leen. Euh, impliquer inspection de la jeunesse. Ah. impliquer ODECAV mm. service d'hygiène Caritas BNDE euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo gérer tey lépp la nga xamante ni mbalit la associations, ONG OCBI pratiquement toutes les forces vives au niveau communautaire au niveau local nous impliquons très bien def lancement bi mm. ku avons wax stratégie. nous avons une stratégie bi buñ koy def du dañuy jug rek di telli non non lu ci war ah. dans une commune la porte d'entrée c'est la mairie c'est la municipalité mm, mais municipalité aussi am nañ ay municipalité en miniature mm. boo demee ci délégué ba mm. jaar nga fa nga war jaar boo conseil consultatif de quartier bi jaar nga fa nga war Buntula. jaar buntu la mm. ñu ne nag kon lu ñu def rek le CCQ le conseil consultatif de quartier bu ko defee euh, borom néeg bi moo gën a xam ay matti lalam jaar nga fa nga euh, identifier ensemble euh, fa ñu def euh, action. nous défendons ko bu ñu paré acteurs yi ñu impliqué ci quartier bi. pratiquement nous xol ñom assurer après le suivi. parce que nous ba ñu collecté. Mm. aussi pour rappel amul fenn fa nga xamante dañ fa def activité. Mm. collecter te duñu acheminer amul. aussi euh, ñi ngi saluer encore une fois madame le maire ci dynamisme am ak euh, vraiment. Euh, taxawaay bi nga xamante ni ko ak confiance bi mu am ci ndaw ñi waaye ndaw ñi ko seq wala ñu cee sori mm-hmm. ñu rappeler tuuti kawlak Set ñi ko seq directeur conseiller mm-hmm. assistant de assistante de direction da nga ci fekk commerçant tailleur da nga ci fekk nit ku couche sociale bi da nga mm-hmm. c'est-à-dire euh, week-end day jot. Mm. ñu futeeku ku nek baye njabootam. Euh, baye kërëm mm. ñu né nañ wacci pour pour pour suñu suñu commune. Mm. alors don de soi bobu noonu. xaruñ dara madame la maire defal ñuko xaruñ dara ci ay autorités politiques. demuñ ci benn banque di quémander quoi que ce soit. mais au contraire da ngay gis. Euh, élément Kaolack Set Wecc da nga gis membre yi. Mm. léeg ñu def activités ba noppi am kenn ku génne xaalisam teg wala wala balaa ñuy def activité mu ne tey man may def ndox kii ne man maay def boisson. ku nekk xool la nga xamante ni mën nga ko def pour euh, sa commune Kaolack voilà nga def ko d'accord c'est très important euh, mi ngi noonu nag nekk leeral yoo xamante ni tamit nag mu ngi jógee ko rek ci monsieur Ibou Thiam moom itamit nekk coordonnateur wa mouvement Kaolack Set Wecc euh, ma ñëw ci mu ngi noonu Amadou Tidiane Lo Baboy comme ni mu ko waxee moom monsieur Thiam am na solo mbir mi xalaat baa ngi jógee ko ci madame le maire Mariama Sarr waaye nag mu seq koog ay ndaw yu dynamique ñu jëmmal ko ba tey ji mbir mi ah, tàmbalee dox ba tàmbalee ami tànk ndax mën nga dikkaat rek sof ci par rapport ak moom ñi euh, nga xam ne rek dikkee na ko ci historique bi ak concept bi. waaw lu lu ma ci dolli mooy que concept bi ba nga xamante ne ni tey élaboré nañ ko ba adopté ko. Mhm. ndaw Kaolack yi ñoom ñoo ko accepté seen bopp. ñoo ko jëlal seen bopp teel ko seen bopp wan ne lii seen bës seen bës la waaye lii lu ñu moom la ndax lan. Mhm, ndax lan jàpp nañ ne ndaw bu ne. Mhm. war nga mun a taxaw ne man lan laa war a defal sama gox. Ah. lan laa war a féetale man ba ma taxawee ba pare. Hmm. am lu ma mën a sama bopp man lan lay delloo population bi. lan lay delloo population bi mu jàpp ne ndaw ñooñu nag. Hmm. muy ndaw yu farlu. ndaw yu am fulla ndaw yu am jom. Hmm. am luñ bëgg ne suba ñu taxawee ñu ne lii de ñoo ko fi defoon. très ñu amoon nag défi bu ñuy relever. ndax démb dañoo tolloon foo xamante ne fu ñu wax rek ñu ne Kaolack dafa set. set boobu noonu jaf jafe-jafe daal li ñu koy waxee mooy Kaolack dafa salte. salte boobu nag ñuy nekk lu ñuy métti. di bi ba ñuy nekk xale. ñu jàpp ne nag Kaolack dafa salte boobu ñun tey ndawu Kaolack ñun ñooy dindi ne Kaolack dafa salte mm. waaye Kaolack tey set na set na boobu nag mm. ku nekk dafa am loo ci war a def ku nekk dafa am pàcc boo xamante ni da ko cee war a taxaw ndaw yooyu nag mm. muy ndaw yu responsable ñoom ñoo jël affaire bi moomale ko seen bopp ba bu buñ ci dem comme ni ko Ibou waxee bu ñu demee ci quartier bu fekkee ne samdi lañ fa war a euh, def activité mercredi soir lañ fay dem pour identifier site bi mm-hmm. ak population bi mm-hmm. ànd ak ñoom ñu ne ñu fii dafa tilim fii ak fii léegi lii ak lii lañ bëgg nettoyer ñu ñoom ñu wax ñu ko pare ñun bu ñu nee vendredi si ngoon matériel bi jiitu na. yàlla nag jagleel ñu lu jafe mooy matériel humain. Mm-hmm. Kaolack seet ci loolu da ko am mooy ay ndaw yu takku. yu taxaw bokk nag ci différents quartiers yu Kaolack. Mm-hmm. ku nekk tey comme ni ko Ibou waxee bu bàyyee liggéeyam ba mu ngi yeex ci weekend bi nga xam ne dafa war a noppaleeku xëy na 9h sol dàllam takk mm-hmm. tubéyam. ne man damay dem defi yow damay dem xeexal sama askan mooy Kaolack bi ñuy naan dafa tilim man Kaolack dafa war a set ndaw ñooñu nag ndaw yu engage te xaaruñ ci dara mm. loolu nag lañ ko doon def jàpp nañ ne suñu première activité fi ma jàppee ne tey Kaolack Set ci am na taxawaay boo xamante mu ngi doom ci yoon mooy bañ demee ndangaan ah, nekkoon défi défi bu métti la woon mm, mm, ba ñuy dem di toog di rencontrer conseil consultatif de quartier bi ak délégué quartier bi ak ñi nga xamee ñoo tam pour ñu rek ñu toog ñu waxtaan ak ñoom rek. Mhm. mu ne woon jafe-jafe. waaye yàlla nag mayuñu ñu ànd ak dal. Ah. xam fi jëm ak liñ bëgg. Mhm. waxtaan ak ñoom ba ñoom ñu nangul ñu population ndangaan génni. Mhm. jour boobu fépp foo xamante ne ci ndangaan jàppoon nañ ne fii tilim na. waa ndangaan génn nañ. Kaolack Set Wecc ñoo accompagner leen ñu nettoyé ko pare waaye nag li si neex ci liggéeyu Kaolack Set Wecc mooy fu mu jaar du fa bàyyi mbali lépp lu mu nettoyé dajale ko soog commune bi. Mm. ñu accompagner dem jëli matériel bi jël lepp lu fa defon bayiko fa. Mm. ba paré nak population bi nga xamé mom moom lañ fekk woon jël suivi bi. Mm-hmm. jël suivi bi. Mm. xol na fi de barki dem ñun ñoko ko way ngel la waaye du ñu xool suba ñukoy koy tilimalaat. nan lañ koy toppatee moy ko sa suné ne ñu namat suñuy jaas yi. mooy suñu soxla xam nañ ne Kaolack set wéccu mu ngi fi nekkal fi ndaw ñi waye nekkal fi ñëpp. te suñu soxla matériel bu ñu laajee ñu jox leen. ñoom nag ñu jël suivi bi loolu nak wax deug yalla ñun dañ ci gërëm quartier ñu jot jaar yépp Kaolack mu ngi nekk si 45 quartier mm-hmm. waaye ñun moment bi ñu toll si Kaolack seen wacc ñun mun nañu wax ne 38 quartier yëpp jaar nañ fa dinañ ci ñëw 38 quartier yëpp ah, quartier yi nga xamante ne ah, Kaolack seen wecc dëgg na fa tànkam def fa liggéey bu mucc ayib yëpp daañ ci ñëw ci kanam waaye des ba tey ci wàllum engagement bi ak motivation bi mu ñëwaat ci yow ah, monsieur Thiam comme ni nga ko waxee mbir mi amaana ci njëlbeen ba ñu bëri jàppoon nañ ne eh, c'est utopique comme ni ñu koy waxee rêve la gént la tey jii tey jii ñu dem ba gis ne gént gi comme ni ñu koy waxee fireeku na doon dëgg ci ni ñu ko mën a waxee parce que jëflante ngeen ak ay quartier yu baree bari lu leen may loolu jaaruwaay bi lan la woon comme ni mu ko waxee sànq ça n'a pas été facile dès le début lu leen may tey ci ngeen dem ba askan bi adhéré lan la waaw loo loo loo xamul mbóot ma doo ko jox cër mhm. yàlla dafa def euh, on a côtoyé madame la maire ci ci ci ci ba muy ci ba muy door fi Kaolack mhm. avant muy nekk maire Masha allah vision. on n'est pas nekkuñ fi pour euh, def defal ko ay takal ko mhm. mais dafa am la nga parfois day um, ñi dañ koy umpale. yag nañ tok muy joytu Bobu, dara xewul. Mhm. yalla defé mu ñun a impliqué ak population yi. plan Orsec 2012 dañ daan wàcc dañ daan xuus ci biir ndox mi di def ay bot di dugg ci biir ndox mi ah photo yi ñu ngi fi ba tey ànd ceeg moom ànd ceeg moom di yenu suukar di jël ay ay ay vivre ay denrées di ko di fekk ji population yi fa ñu nekk ci biir ndox mi génnee leen fa soulager leen def ak ñoom yu bari ah, jamono nawet waaw mhm. ku mel noonu buñ demee di dem jamono di dem ba mu am gis-gis ne war nañ mën a teg benn concept mhm. xëcc force vive yëpp ànd ak ñoom liggéey. Mm. ñu gën a ñaax nit ñi ci participation citoyenne. Mm-hmm. gën a xamal nit ñi que mbedd mi mbeddum buur la. Mm-hmm. loolu waxi kese la mm-hmm. ndax buur fanaanul ci mbedd mi. te yow mi fal buur yaay boroom mbedd mi buñ demee ba nit ñi xamee ko noonu kon dana dana dana yemb. Kaolack bàkkee neen ko dëkk bu salte je dis non parce que dëkk yi mu gën a set bari nañ lim liñ fi jot a def ci municipalité bi aussi. takuna lol mm-hmm. sans doute Baboy dina ci ñëw après. Mm-hmm. Euh, mais ba mu gisee Kaolack sen wecc ñun dañ ko mësa gëm ñu nit xam nga lutax gëm-gëm bi dëgër. lutax mo mu euh ngone ku nekk ci ñun. Mm. ñaan nga yalla sa njaboot. Mm. en certain moment de la vie mu laaj la pa wala maa lan nga fi def. loo def loo defal sa dëkk. waaw defal sa gox. waaw c'est important. c'est important. Mm-hmm. am na ña nga xamante ni bu ñuy fàttaliku seen i grand ay ay baal la ñuy fàttaliku <laughs> ay affaires ya nga xamante ni voilà c'est malheureux mm-hmm. mais moo am mm-hmm. mais ñun ñaan leen yàlla mm-hmm. suñuy petit frère wala suñuy doom buñ bu buñ demee ba benn moment xamal leen ne ah am na la nga xamante ni day idéologie la woon concept la woon ñun jéemoon nañ ci bay suñu waar waaye xam nga lu ko euh, conforter position boobu dañu dawal ba mu président Macky Sall. Mhm. ne Sénégal zéro déchet. kon Sénégal set wecc ñewna ñewna <laughs> ñu dem ba mu mhm. ñu né non dañ ko décentraliser dañ impliquer les autorités administratives. Mhm. gouverneur nekk Kaolack set wecc ne eh, ku nek gouverneur bu nek wax barabam set wecc préfet yi jël affaire bi. ñuy saluer au passage suñu préfet. monsieur Diaw machallah euh, lépp la nga xamante ni da koy def comme activité daf ñuy impliqué et on essaie toujours d'être au devant de la scène. Ah, très bien. bu ñu demee ba autorité administrative yi jël mbir mi. kilifa yi mhm. kilifa yi. Mhm. waa mais kon ñun la nga xamante ni ni saroon nañ ko. Mhm. amoon nañ ko comme gis-gis. kon dëgg la. kon da ngeen di wax ne reconnaissance maanaam dafa am. reconnaissance au niveau communautaire, reconnaissance hmm. au niveau administratif, hmm. reconnaissance pratiquement ci acteur de développement Très bien nak lolu hmm. bu xasse ba am. yow da nga wara gëna la a la xam ne nag luñ la ñaaxone ben ñaax nañ la ko lu takku. kon tu n'as plus droit à l'erreur ñu gëna a proné don de soi bi. mbir mi dañ koy def. ngir suñu population xaaruñu ci. lan ngeen tuddee don de soi mooy summeeku. summeeku. Mhm. parce que doo xamee kilifa. waaw ak c'est-à-dire ñëpp ak kilifa leen ci Kaolack Set Wecc. Mhm. Kaolack Set Wecc xam nga lu ñuy lu ñu am comme bac. waaw góor jàpp ci góor. góor jàpp ci góor. Mhm. jigéen jàpp ci jigéen. Ah. kooku général biiru mi ngi ci biir yëf yi moo koy faral di <laughs> joxe. mi ngi ci liggéeyee ba mu yàgg mbir mi métti lool. waaw damay joxe benn anecdote sëñ Moustapha Abbas dañu mës a benn site. waaw sang bi ñu koy nuyuwaale sang mhm. ndeysaan. Mhm. ah Ibrahima fii de lañ bëgg a liggéey. mu ngi mi ngi xalaat daayira bi ñëw. mi ngi mhm. xalaat ñu am assez de bras. ba ba ñuy def reconnaissance de site yi. ma ne ko non sëñ bi fii moom bu ñu fi xëyee yaakaar naa ne lépp dana yemb. mu ne ah waa baax na xam naa boobu. gisagul woon gars yi. Hmm. mais gars yi bu ñu wàcc see xam nga lu ñu la non mbalit mi bu fi jugul dañ koy lekk. <laughs> alors nga gis. Hmm. dafay am ay yëf ya nga xamante ni dafay génn di dégager wu quand on sur le terrain. Hmm. Euh, am la nga xamante ni amour buy am la. entre membre entre nga gis ne fu ñu dem. gis mu tilim lool. ñu nettoyer ko ba mu set. jëlal la photo avant yi ak après yi. yow da ngay am benn. fierté ba nga xam da ngay da ngay sawar gis ne que différence bi am entre désert ak jardin. Mm-hmm. désert ak jardin. Mm. différence bi ci am. waaw du ndox de. ngone du ndox lan la. loxo nit ki la. d'accord c'est la main de l'homme mm-hmm. parce que loxo mooy dem roti ndox indi sotti ko fi nga xamante ni suuf la amul dara di désert di ko sàmm di ko sàmm ba benn garab génn fa garab googu amaana dana nekk arbre fruitier dana nekk moo xam leneen ak leneen la nga xamante dana mën a servir nit ki kon différence bi am entre fi tilim ak fi set

ñu gis ne am na ay ndaw yoo xamante ne tant soit peu comme ni ñu koy waxee nekk nañu ay visionnaire yoo xam ne ñi ngi xalaat ne Kaolack war na mën a développer Kaolack war na mën a set pourquoi pas Kaolack mel ak gox yi nga xamante ne ñu ngi di tudd ci wàllum set ah. dem ba gis ne seen vision boobu dafa yemboo képp ak vision wu jiitu réew mi comme ni mu ko waxee monsieur Thiam. waaw ñun dañuy sant yàlla bu baax a baax. Mhm. keroog bi nga xamee président Macky Sall woote na Sénégal zéro déchet jour boobu mbégte lañ am ak contentement. Mhm. ñu ne ñun de. xeex bi ñu doon xeex démb ak barki démb. tey président Macky Sall fekk na si nañu si. ndaxte comprendre nañ bu baax ci depart mm-hmm. ndaw Kaolack yi nga xamante ni engagement bi ñu jël. Mm-hmm. ne kartie bu ñu dem Kaolack seen wecc boobu tey dafa dem ba jural seen boppam ñu ne bong rek seen wecc. ndax waa bong dañ fa dem. Mm-hmm. ànd ak ñoom ñu wàcc ak ñoom ci site yi nga xamante ni ñoom jàppoon nañ ne lii. dindi ko matériel mooy doon moo koy moo koy dindi. nit mënu ko dindi nit ko dindi. mais ñu ñëw ak suñuy volonté. Ah. ak suñu capacité bi nga xamante tey xam nañ mbalit nan la ñuy def ba dindi ko. Mm. jour boobu waa Bongare taxaw ne ñoom de tey bés ni ki tey Bongare seet wecc ci jët am na te tey ñoom ñooy ñoom ñoo judd Bongare màggee Bongare waaye ñoom ñooy taxaw Bongare. Mm-hmm. waaye ñoom de tey lépp loo xamante ni tey Bongare dina ko defati waaye ñoom seen seen lépp jël nañ ko. Mm-hmm. wekk ko ci kaw sa Kaolack seet wecc nekk mu nekk seen bunt nekk ba tax nag loolu. Mm. taxoon bu san seet wecc juddu. bo démé bu santé yi saa su ne bu ñu amé activité dañ accompagner Kaolack sét wacc accompagner leen ñu and ak sék ñom mm. ku ndam sét wacc am amna tay bu kaw waa wa yépp togué mm-hmm. amaan amana amna lu fi amone dembu boy dugg ci Kaolack nga gis ay tata bu mbalit waaw ci quatre kaw Kaolack yi bu ñu waxanté deug mama biñ tollu amatul amatul amna lo xamanteni nak, mm. ñun doomu kaw dindi tur biñ ñuy bakké bu dañee nañ nangu ne nag dañ na. Mhm. des na de pour Kaolack set. des na de. ñu ngi ci waar bi. waaye ñu ngi ci woo ñëpp. Mhm. nañ xam ne ku nekk loxoom da cee war a dugg. Mhm. fu mun munti nekk. sa gox dama ne. bu Kaolack neexee. ñun la ñun la. su Kaolack naqaree ñun la. waaye su Kaolack tam tilimee. ñun population Kaolack ñun la. mbalit bi yóbbul fenn boppam de. dafa am benn jour ci gouvernance ancien gouvernance bu Kaolack. waaw boo demoon foofu ci ginnaaw dangay fekk ñu doon def ko taataawum ordure boo xamante ni bu am doole. waaw sëni sunu mbalit. sunu mbalit. ba mhm. ñëpp jàppoon ne fii du mus a mm. dem fa tey dañoo jël akom ànd ak waa mairie bi. ñu ne mm. leen lii. Mm. dafa war a deñ ñu ne ñu ay loxo la. Ah. xam nañ ne mairie bi bëgg na. mais am na moyen boo xamee amu ko waaye moyen imee bu yëpp bu ñëpp génnee. ñu ne lii dañ ko fi jëlee ñu ànd seek ñoom accompagner leen. bañ ko fa jëlee. jour boobu ñu bëri dañoo jàppoon jàpp ne kon nag liggéey lépp waaye bëgg a def rek war na ko mën a def. ci ànd ak volonté. volonté volonté boobu nag. Mm-hmm. dañoo fekk nag ndaw Kaolack Set ñu am ko waaye fépp fu ñu dem dañuy insérer wu loolu. ci Kaolack Set Wecc dafa am ci activité yi ñu jaar yëpp. Mm. activité bi ma ci gën a neex. muy mooy activité bi ñu def kabatooki école di mm. waaj ubbi. waaw école war a ubbi. Mm-hmm. école Kabatoki. Hmm. nekk ci biir ndox. déedéet hmm. la kenn amul fooy jaar pour dugg ci biir école bi. loolu. Hmm. am ku fa nekk ku ñu naan jaar yi. nekk ci ko bi dem yëg ko. ne man de lii ma gis yaakaar naa ne Kaolack seet ci am na ci saafara. mu wax ñu ko bañ demee def état des dañoo ne non école la nga ubbi ñan ñooy jàng. suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk non duñ leen seetaan. Kaolack seet ci wàcc fa. wàcc fa. xàll yoonu ndox mi ba ndox mi deñ mm. xàll xool nag jël ci moyen am ibu jël dërëmam mm. keneen jël dërëmam ñu xool lu ñu am dem jënd ay charge suuf dem jënd ay saaku sol ko ci ay saaku mm. defar yoon ba nga xamante ne élèves yi bu ñëwee dinañ dugg ci biir école yi classe bu ne duñ am problème ba ndox mi di mun a demee noonu population bi jël ay charge suuf jël population bi tamit ñoo fekk siñ ci loolu jël si ñoom nag ñii dañoo ñoo fekk siñ def ñi ñun ñu leen seetaat xoolal loolu ba année bi ubbi euh, école ba mu ubbee. Hmm. ñooñu dañoo def jàng. macha allah li ndax nag li tax nag mbégte bi am am ci. Hmm. daf ci am benn maître bu fa nekkoon. benn dañoo dajee ci année bi ba jeexee. Hmm. mun a mën de li ngeen defal li ñeneen ñu defaloon keroog am na benn ndaw bu nekkoon ak yéen di leen doon jàppale. ren dafa bokk ci meilleur élève Kaolack. ba pare da doon def entrance yim ñëw dagg ko defis ba pare bokk ci les meilleurs élèves ba pare saa su ne moom mooy initier ci biir école ba ne nañ def nettoyage ba mm. kon ndaw day jàpp mm. ndaw day jàng mm. ci li muy gis ci royuwaay kan lay roy ban nit lay àndal kan lay roy référence bi mu war a doon. kon tey jii bu ma la déggee eh, Amadou Tidiane Lo Baboy mooy que ne eh, mouvement bi nit ñaa ngi koy adhéré bu baax a baax au niveau de Kaolack mm-hmm. est-ce que Kaolack commune kese la. Mm-hmm. waaw moment bi ñu toll mm-hmm. Kaolack commune kese la waaye ci yeneen commune yi nga xamante ne tey muy ku mel ni Sibassor mm-hmm. maire bi en personne côtoyé nañu won ko mm-hmm. nan lañ def ba mu am ay ndaw yu fa nekk yoo xamante ni tey ñoom nangul nañ ne Kaolack seru wecc Kaolack yépp la ñoom nag ci lañ dem xool naka lañuy def ba jàppoon bés pour Kaolack seru joge fii ci dem sibosor far yàlla dogal li li am te incha allah bu ñu jógee ci xeex bii ñuy xeex. muy coronavirus bii. dinañ nga dégg Kaolack Seet Wecc jóge na fi dem accompagner waa Sibassor pour que euh, motali yoonam d' accord ci dikk dégg naa tamit corona bi jamono ji ngeen mun ngeen ba dëgër rek ngir daaneel ko wala sax fexe ba nga xamante ne Kaolack moom du fi teg tànkama ah. génn Sénégal génn ci àddina bi daj wax ngeen képp comme na ma koy waxee mu ma liki naka jamono ji may àddoo ngeen di teewlu tamit ah maa ngay gis ba booy photo yu am solo comme na ma ko monsieur Thiam joxee nii mu nekk ay photo yoo xamante ni également li nga doon wax léegi rek lay firndeel école yi nga xamee ne jaar ngeen fa hmm, également partagé ak élèves yi ay moment yoo xamante ne ay moment yu am solo la mm. waaye lii lépp day wane na rek bëgg Kaolack mais également bëgg li nga xamante ne moo di sa gox mm. comme ni nga ko waxee sànq boo waxee ne ah, sama gox li moo defal mais également yow ana lan nga defal sa gox mm. loolu mooy li jara lijjanti ma ñëwaat ci monsieur Thiam sànq da nga ko cof ma dagg la muy par rapport ak coordination mouvement bi quartier yi ngeen di dem ba askan wi di adhéré ndax mën nañu xam jokkalante bi naka ngeen di def ba dem fa jokkalante bi naka lay demee buntu yi waaw da d'abord euh, euh, dañuy mën neen jaar ci conseil de quartier bi waaw mën nañ jaar ci délégué de bi mm-hmm. mën nañ jaar ci benn organisation communautaire de base communautaire de base. mën nañ jaar ci benn association. Mm-hmm. léeg léegi nga gis aussi ay personne ressources. ya nga xamante ni dañuy nekk ci gox yàgg liggéey seen koñ. Mm-hmm. je donne un exemple Ndar gu ndaw. bambara waaw. mom on nañu ñu and liggéey ak mom alors acteurs yi nii yépp dañuy faral di liggéey di liggéey ak ñoom. Mhm. Euh, parcelle par exemple ay xale ay tout temps. waaw parcelle bu kaw la parcelle Assainies. Mhm. doomu ñom aji jaara aji jaara aji euh, jaara waaw. Mhm. aji jaara chanteuse. Euh, am ben année dañu jëlone ay feetu 31 décembre. waaw feetu Noël mais xalé yi dañu o mm-hmm. ñu accompagner leen mm-hmm. liggéey ak ñom mm-hmm. imaginer xalé yoy buñ commencé ay 11 ans 12 ans buñ magalé ak lool ñom ñoy jër à à bras le corps li nga xamanteni moy insalubrité bi am sen koy alors dañuy faral di liggéey ak acteur yi ni yépp euh, conseil communal de la jeunesse aussi tëjaluñ ko suñu suñuy bunt. Mhm, conseil communal ñing ngi koy Cheikh Tidiane Sène ñu ngi koy nuyuwaale. ñu ngi koy mhm. nuyu au passage. Mhm. momit it am nañ ci ay ay activités yu bari ya nga xamanteni yu yu am solo la mais préfet aussi. dañuy liggéey ak moom dañuy liggéey ak mom préfet euh, on nañu ci ay rencontres. Ah. Euh, de de coordination mm-hmm. ay comité ya nga mm-hmm. xamante comité départementaux ya nga mm-hmm. xamante dañuy toog saytu waxtaan euh, xool orientation yi nga xamante war nañ ko mën def et au delà aussi bu ñu waree wàcc ci euh, ci terrain bi def action aussi dañ ci ànd liggéey ak moom bon euh, comme li Baboy wax tout à l'heure da fay bax euh, ñu ñu insister ci. milan lan muy euh, ñi nga xamante ni ñoo composé Kaolack Set Wecc wa vraiment c'est le moment pour ñun ñu ñu santat len mhm. benen yoon. Mhm. c'est le moment. wa parce que yombul xam nga loy nek d'habitude di ci di ci yëngu. Mhm. fay ñu la ci. ah volontariat la. waaw bénévolat la. fayuñ la ci. surtout suñu société yi. léegi mhm. léeg nit sax dana la romb ci benn barab. waaw xaw a foog ne yow mii da nga doyee di. wallaay wallaay waaw. waaw euh, wala jàpp ne sax ne am na leneen lu nekk ci ginnaaw. Mhm. Mhm. rajo laa toog rajo laa koy waxee. waaw madame le maire sans doute mi ngi ñuy déglu. xaaruñ dara ci moom laajuñ ko dara. <laughs> waaw rajo la ñu toog. fi lañ koy waxee. parce que foofu laa doon bëgg a ñëw hmm. euh, peut-être parenthèse boo ibbi la hmm. foog ñu leeral ko hmm. ñu bëri dañuy faral di wax ne peut-être li ngeen wéeru ci ginnaaw madame le maire la moo tax nangam ak nangam c'est le moment où jamais également pour leeralal ñen ñi nga xamante ne peut-être ñu ngi am yenn idées yi par rapport ak mouvement mais c'est ça. moo tax euh, récemment def nañ benn benn activité ak euh, ay commerçants yu nekk fii centre commercial. mais ba ñu wàccee liggéey gars yi ba noppi. Euh, échanger dañoo xam ni que ñii ci gëm-gëm la ñuy dox. ok dafa am dafa am sax ñu adhéré ci suñu mouvement. Mm. te nag pour rappel aussi fépp fa nga xamante ni dem nañ fa. Mm. da nga fay fekk ña nga xamante ni. Mm. la nga gëm ñoo la ko gën a gëm. Mm-hmm. waaw kon Kaolack ñàkkul ay ressources humaines. Mm-hmm. gis nga lii xew euh, ci corona bi. gis nga solidarité bi am. Mm-hmm. gis nga compréhension bi am entre les populations gis nga buñ ko amoon mm. avec nos autorités administratives et locales daf mm. yi day gën a neex parce que dëgg dëgg dëgg développement nag fa mm. lay tàmbalee nag gis nga kër balaa neex dañuy bokk harmoniser ku nekk day am confiance ci moroomam ku nekk bëggal boppam kër gi ku nekk jéem a jëf ci kër gi jëf nag du da ngaa am xaalis rek da ngay def mm-hmm. non non nit ki dana toog ci ruqam sax gis ne xeer bii nii ab pàkk la bu ko fa euh, dendalewul nit dana ci faqasa mën na cee daanu mën na cee daanu mm. mu dindi ko loolu yiw la yiw la alors dafa am yu bari ya nga xamante ni euh, mbir mi dañuy dem ba ci biir lu ñuy gën a xuus mu ñuy gën a jàngal mm. ngay gën a xam aussi la conscience des populations mm. comme les mu wax sànq da ngeen daje quelque part Euh, waaw mu xaw a soofantal yëf yi mm. mais ngeen dajawaat nag ci sa barabu liggéeyukaay mm. mu xam ne ah kii kan nag ndakate Euh, da doon futteeku weekend bi. Euh, jëf mu xam yow yaay kan. voilà euh, jëf pour goo xam. <laughs> Uh-huh. après bu jeexee day retourner à d'autres activités. d'accord c'est important mi ngi noonu donc jëfal sa gox la jëfal sa réew la fàttali leen rek ba tey tamit nag jamono ji ñu ngi ànd ah, ak plateau bu am solo bi ak ñi nga xamante ne rek ñoo di waa mouvement Kaolack Set Wecc comme nañu ko bàkkoo ah jël ko nag def ko seenug bàkk def ko seenug tour ma ñëw ci Baboy comme ni nga ko waxee sànq par rapport ak Kaolack quartier yi mu am 45 quartier yi am ngeen ci benn cible boo xamante ni au moins ngeen ko donte ne sax nag xaj na activité yi yemagu fa xaj na coronavirus bi xaw na am lu mu tàgga témbeel ndax mën nañu xam liggéey bi foofu buñ ko doon xayma activité yi ngeen jote mëne mais également est-ce que dafay yem rekk ci ñëw ci quartier bi nettoyer après dem wala daan na ànd ak waxtaan ak sensibiliser ñi nga xamante ne ñoo fa yeewoo waaw comme ni ma la ko waxee sànq nee naa mm. la Kaolack am na quarante cinq quartiers waaw waaye ñun jàpp nañ na ci quartier yi ñu jot a jaar yëpp am nañ 38 quartiers yoo xamante ni. 38 Kaolack seetoo ci teg na fa tànkam. fanweer ak juróom-ñett fii ci biir Kaolack. Mhm. te li ma lay wax ñoom ñu ngi population bi ñu ngi ñuy déglu. Mhm. ndaxte lu ci gën a bëri. am na suñoo xamante ni tey dañuy dégg Kaolack seetoo ci am initiative bi jël seen téléphone wooñu mhm. moo tax ma ne la buñ fa naree dem samedi. mercredi lañ fay dem. pour def état des lieux toog waxtaan ak population bañ sensibiliser bañ xam ne ñoom lii lañ bëgg ñu defal leen matériel bii moo fay soxla moom lañ fay defal bu ñu demee ñu def mu préparé ko. waaw le vendredi bi ñu yóbbu matériel bi mu fanaani jiitu. mu fanaani fa bu ñu xëyee samedi à partir de 9h nit ñi commencé wàcc si. Ah. ku nekk nag ñëw ak sa moyen bopp bu dee mhm. sa vélo nga yor noo mhm. xam foo munti jóge ci kaw rek si lieu bi wax nañ ko nga déplacé wu ak sa moyen bopp mhm. loo xamante ni sa décision bopp la sa yow yaa jëlal sa bopp pour démarrer sa bopp bu ñu fa dajee nag ñu partager tâches yi hmm. ñi fété fi ñi fété fi ñu jël liggéey bi pour que mu gaaw hmm. pour mu yomb wa nga xamanteni toujours dañ fay nek ba midi 1 hmm. heure ay temps quatorze heures ça dépend ci liggéey bi fu mu toll mais suñu paré bala ñuy def dara dañ def ben dajalo waxtaan waxtaan sanante cadeau yi ok échangeante lolu moy waral buñ fay joggé di nga gis ben boy bu la né gannaaw jël sama numéro su ngeen amatee activité wooma wooma gannaaw li ngeen def ñor na nan lay def ba bokku ci du ben yoon du ñaar yoon encore may leeral population. Kaolack dañoo ne Kaolack set wecc mm. du ma Samba nag du ma Demba. Mm. du affaire politique. du politique. du fii laa bokk. waaw waaso déedéet. Mm-hmm. du diine bii laa bokk. ay ndawu Kaolack lañ ñu dajo. Mm. pour defal suñu gox. ñu jàpp ne ñun ndawu Kaolack. bu samedi ak dimanche jotee lan lañ war a defal suñu gox. moo nañ futteeku. ba démb li nga xamee moom lañ doon wax. Mm. ñun ñu fexe ba dindi ko fi. ba dindi ko fi muy Kaolack salte dafa salté di dellu si ci tuuti sànq question bi nga laaj Ibou. waaw moo ko tey nit ñi nan la ñu fexe ba adhéré wu ci Kaolack seen wecc boobu ba nga xamante ni tey niñ fay ñooy. Mm. jàpp naa ne tey ba nga xamante ni jaar nañ ci chef de quartier bi jaar si conseil consultatif du quartier bi waxtaan ak ñoom. Mm. ñoom seen bopp dafa am sensibilisation boo xam ne ñoom ñu ngi koy def. ñoom ñu ngi koy def def ko ci waxtaan ak population bi ne leen am na fi war a ñëw jàppale ñu. Mm. ñuy def si ñun ñoo ko moom dañuy tedd. ba mm. tax na buñ fa am. wax dëgg dañuy le président des délégués de quartier. waaw ki leen jiite. Mm. ndax tamit souvent. moom fu ñuy dem daf même parcelle bi nga xamante ne demoon na ah. daf ñu accompagner journée bi tamit ñuy pousse nañu quartier nangam mm-hmm. nee soxla na mm-hmm. mu orientation bañ mun cee dem ba nga xamante ni ku nekk rek. Mm. pour part de responsabilité di encore une fois doomu kawla gi nañ xam ne lii ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñoo ko bokk ñoo ko moomal suñu bopp. Mm. ñun ñëpp buñ ci laxasaayoo suñu la te mm. Kaolack dafa nekk Carrefour. lay Carrefour la man dama jàpp ne tey Kaolack. opportunité bi am ak potentialité bi mu am. bu ñun ñëpp bu ñu dajalee suñuy force. dajale suñu doole. jàpp euh, bàyyi ay Masamba wala ma Demba lay defal. jàpp ne looy def sa bopp nga koy defal te fay bi yàlla buur bi rek moo yor fay mm. ñun li ñuy def li dañ ko gëm jàpp ne réussite bi mu sunu kanam te incha allah niñ allah donc mi ngi noonu li ñuy def dañu ko gëm te dañoo jàpp ne nag réussite bi maanaam daal ndam la ma nga ca kanam di kàddu yi euh, Amadou Tidiane Lo ñu gën koo xam ci Baboy di ànd ba tey rek ak ñi nga xamante ne nag ah, ñu di waa Kaolack seen wecc ak doxalin wala tamit jéego yi nga xamee ne ñu nga koy def ngir Kaolack mën a soppiwu xar kanam ngir Kaolack mën a am xar kanam boo xamante ni tamit kenn dootul waxati ne Kaolack dafa salte waaye dañu naan Kaolack legi bokku na ci gox yi nga xamni gën nay set fi ci xewum suñu gal wala ci diwan yi nga xamni ci item gën nay rek suqaliku fi ci xewum suñu gal ma daal di ci cham euh, cham na ngeen ko defé amna solo ngeen yàgg laxasaayu ah ba jitu rew mi ñëw yëkkati ay cadeau fekk leen fi fekk leen ci seeni xalaat way tibit nak ba jamono ji nga xamantene nak coronavirus ñew na nak ah, mu melni ki ba mu ñewé amna lu mu tàgga témbel waaye également ah, taxul ngeen tok ne ya ci yaacaaral parce que teewul ba tay ji bay ak ngeen dund tuddee euh, mbiram coronavirus bi ak liggéey bi nga xamante actuellement yéen a ko ciy mëne. waaw euh, loolu dañ ciy ñëw mais ñu def ben glissade bu ndaw. allez-y parce que Baboy insiste na ci te dafa am solo. c'est-à-dire def nañ plus de 38 quartiers. Wow, 38 quartiers mais fréquence volume de d'activité bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ëpp na ko fuuf. Mm-hmm. ëpp na ko. parce que mën nañ dugg ci quartier. dugg fa duggaat fa. ah def ngeen loolu. dem ci quartier demaat fa. dem fa demaat fa c'est-à-dire site yi mën nañ bañ a doon benn. waaw waaw. à date Kaolack Set Wecc war na dépasser plus de soixante quinze activités. wala soixante quinze sites. D'accord. def nañ plus d'une cinquantaine d'activités. def am nañ plus de soixante quinze voire quatre vingt activités euh, sites ya nga xamante ni assainir nañ ko def nañ ko loolu je pense que c'est important et récemment mm. Mm. ci mbalem poroxaan bi sax pour vous dire waaw dem nañ fa ah macha allah dugal nañ seen loxo waroon euh, dem euh, taiba. Euh, lëkkaloo ak UCG woo leen ñoom ñu ne ñu jiitu nañu Ndakate ci biir semaine bi ah. ñun weekend bi lañ bëggoon a dem mm-hmm. euh, loolu xam naa après dañ xool nan lañ ci mënee def mën benn coordination de mm-hmm. sorte que daneen am ñu ñu mën a àndal euh, Taïba site religieux yi aussi fii Médina julleekaay mm-hmm. bi heure bu julli yi di di jege si dañ fay dem nettoyer ko ah, ak penc aussi mm. pareil mm. alors l'eau liée pour nañ ko def et bénévolement quoi par rapport à cette question bi mm. euh, coronavirus bi sa borom euh, euh, du féliciter encore une fois vraiment docteur. nous mm-hmm. suñu suñu médecins mm-hmm. mm-hmm. cas agent sanitaire yëpp quoi euh, coronavirus bi ñun ba ñu ba ñu yëgee yëf yi. waaw ba ñu yëgee premier voilà mhm. comme ñun ñi ngi doon euh, yëngu ci euh, set. booy xool ñi ngi waroon a def cleaning day. Mhm. Mhm. mais dañ ko asseoir. ak préfet. parce que boobu amoon na 48 heures avant. Mm-hmm. nous devons nous préparé pour mm-hmm. faire ah, l'activité. Mm-hmm. parce que je pense que c'était suñu troisième cleaning là woon. ak yi ñu autorité administrative comme deuxième. Nous euh, gis vu que nous avons ña suivre. à travers les réseaux sociaux. ñeen avons commencé sensibiliser d'abord fof mais aussi nous na la nga accompagné nañ ci conseil consultatif de quartier mhm. ah. par le truchement de la municipalité mhm. euh, quarante cinq quartiers yëpp waaw am lu fa commune bi def à mhm. titre symbolique symbolique waaw parce que nag c'est bien de le rappeler à titre symbolique nous dafa gagner ay dons ya nga xamante ni dañuy dugg kër gu nekk def fa dara joxe ko fa xam nga boo naan nit ñi euh, nañ dem sensibiliser ngir population yi -hmm ngir population yi gën a li ou kër docteur yi diglé digle dafay baax sensibilisation di ako di andak ay action yu ko accompagner am lu manam di am aslëf bu mu àndaaleen bu mu àndal mhm. Mhm. léegi aslëf loolu mhm. du lu ne gagn lay doon comme niko ko olof waxee <laughs> voilà mais euh, tay délégué de quartier bi lu ñu ko jox da koy ak population mm. président conseil consultatif de quartier bi lu mu am mm. de koy bokk ak comme délégué nous mm-hmm. ñu parce que am euh, euh, incompréhension mm-hmm. ba gars que délégué délégués dañ jox ne non non c'est mm-hmm. set gi ku nekk daf ko a la la kon li nga xamanteni ñing ci nek est-ce que buñ fi jugee sax ci dak hmm. est-ce que mënul nek sax voix ba nga xamanteni dafa bok ci li ñuy gëna propulser. Hmm. parce que bo cédé bo setee. Hmm. sa li la wër set. Mm. nga am carte de vie bu baax. sa carte de vie bu amélioré wu. Mm. mais fay impacter naturellement ci sa santé. parce que dañ dan dem parfois mm. sax di nettoyer. le canal bi ñuy dugg ni di ko nettoyer. wala bëgg ko bëgg am ñu engagé accompagner len pour ñu euh, curer ko. waaw du len ludul bëgg jappalé population riverain yi. waaw imaginez canal bi fess ndox momu génn ya ca nekkoon génn. waaw inondation am mu dugg ci biir kër yi ci biir kër yi. menacé xale yi. tout mm. tànk yi mm. menacé mag ñi. mais bu fa set amone lool yëpp du fa am. alors de sorte que ñu jàpp ne euh, coronavirus bi. Euh, amna la nga xamanteni dañ ko ci def comme sensibilisation du yomb nak mm. pour wàcc vraiment sur le terrain di def ay euh, ay ay groupe di def porte à porte dema def nañ ko. Mm. ak ay flyers comme ni mako waxe waxee mm. accompagner conseil consultatif yi. et au passage di rappeler que ñun ñoo coordonner. di saluer encore une fois madame le maire ci confiance bi nga xamanteni amna na ko ci ndaw ñi. ba denk leen lu ni mel. Euh, ñing ci bay suñu war euh, tant bien que mal. Mm. Euh, dem nañ ci 45 quartiers yëpp dajale wuñ kenn fenn. Mm. da fay baax. Mm. yow boo daan jóg di dagaan seen i euh, bat waaw baatu askan bi. Mm-hmm. mais da ngay sol sa dàll. fekk ji leen. am na ya nga xamante ni it bu amee. na na na la ko ëppal sax. bu mu la ko jaral rek yam ci. Mm-hmm. solal sa dàll d'autant plus que dañu aïe, ay rassemblement surtout dañ ñëpp. Mm. ne dem par koñ délégué de quartier bi ci du conseil consultatif de quartier mm. informer aussi élu local ba. wala bu dafa am ay élu mm. informer bu ko

Euh, c'est important que nous sachions aussi Kaolack Set a ay ndaw pratiquement nous le coordonnateur coordonnateur <laughs> c'est <laughs> uh-huh. il est bien mm-hmm. MashaAllah, mm-hmm. euh, yu parce que patriote la am na lu mu gëm. Mm-hmm. mais nag ndaw ñi dañ leen di gën a tàll suñu loxo. Mm-hmm. xam nga conseil communal de la jeunesse. boo ko impliqué ci say activité mm-hmm. impliqué nga ndaw ñi. mais nag doyul. bëri nga dajul suuf. tey bu ñu sañoon suñuy suñuy petit frère ñooy ñëw jël flambeau bi. parfois dañuy dawal ba mu yàgg ma ne ko mais jàmbar xaw nañ xoox na booy ñëw. waxin la du ñu lâché mukk. du bàyyi mukk. tay lañ présent mm-hmm. Mm-hmm. parce que def lu pour sa askan du d'ailleurs dañ koy reprocher en politique mm-hmm. mais non non nous maguette parce que am nañ xelma xalat gu mais ndaw ñi tay Kaolack buñ sañoon dañuy gëna adhérer ci li dem nañ ba yenn sëriñ ci nga xamné ay ndaw reconnaître nañ ñu pour and ak ñun ñu melni mu euh, Mukabaro jot lañ mm-hmm. liggéey ak moom. Mm-hmm. ku mel ni sëñ Jili mm-hmm. ah, ak ñeneen ñi nga xamante ni bëgguñ sax lim. la liste elle est longue. ñi ngi liggéey ak ñoom te gis nañ aussi seen i ndaw ak ndaw yi nekk seen ginnaaw. adhéré nañ pare nañ pour accompagner Kaolack. d'accord donc mi ngi noonu pare nañu pour accompagner pour gungé ji nga xamante rek ñoo di waa mouvement euh, Kaolack cette Wecc ma ñëw ci euh, Baboy Amadou Tidiane Lo comme ni mu ko waxé c'était à titre symbolique manam la lo xamante dal dañu ko jëf rek ah, ngir woné na dal jëf ngir mais mën nañu xam buñ ko doon évaluer mais également ah, tamit mën nañu xam mom dimbal li lan ak lan la composé lan ak lan la làmboo ndimbal li nga xamante ne moom ngeen jox ah, délégué de quartier yi mais également ah, ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy kuréel yi ngeen fi cité yëpp ndax mën nañu xam ndimbal li woon waaw sant yàlla bu baax ndimbali li mhm. mu ngi nekkoon lépp loo xamante ni tey jàpp nañ ne lii booy xeex set moom ngay utiliser mhm. jox nañ leen lu mel ni madaar jël lu mel ni eau de jox leen ko mhm. jël saabu jox leen ko fu ñu ci dem rek dajal nañ ñett mbir yooyu teg ko seen loxo wan leen nag lii comme ni nga ko waxee as lëf la boo xamante ni pour ngeen jël ko téye ko. Mm. jox ko delloo ko ci population bi bi. ku ci nekk tey même bu dee benn saabu la ñu jël ak benn eau de Javel benn madaar. jox la ko nga jël siwo teg ko sa buntu kër. Mm-hmm. def fa saabu teg fa saabu beeg madaar kuy dugg ci biir kër gi. Mm-hmm. raxasu kuy génnaat raxasu. Mm-hmm. te biir si biir loolu dama ci gërëm ci population Kaolack ñenn ñi am teel a am compréhension bi. wax dëgg yàlla nag am na fi tey. ci responsable yoo xamante ni tey seen biir kër lañ jël matuwaay bi. lañ jël da nga ciy dugg ci kër rek nga xam ne mm. kii boroom kër gi jël na matuwaay. jël na matuwaay te loolu c'est important. Mm-hmm. xeex boo koy xeex kilifa yi ñoom ñooy ngemboo xeex bi. Mm-hmm. jël ko téye ko wane yoon bi. Mm-hmm. ndaxte bu ñuy ne ndaw ci kër la jóge waaye ci kër googu mu jóge bu amee kilifa bu fa nekk wan ko yoon bi rek ndaw boobu day neex a yedd tey neex a mais ci biir Kaolack seen wecc ndaw yi ñu doon. dañ ko waxtaan ak ay ndaw ci sensibilisation bi. Mhm. ñu romb comme nga romb benn arrêt jakarta ci biir wax bi nga ñëw won toog ñoom won lañ ne dañ leen te dëggale dañ leen tere. Mm. pour ngeen supporter. dañ leen tere lii ak lii ak lii. Mm. xam ne lii tey ñu def dogal la boo xam ne dafa dal suñu kaw. Mm. waaye bu suñu coobere. waaye nag jàpp leen ne leen sensibilisation bi nga war a. yéen lii tey dangeen ko war a yóbbaale. Mm-hmm. mooy que tey ñaanuñ ko yàlla waaye ku nekk suñun juróomu pilier yi nga xam ne nee wax nañ ko nit ki na nga ko moytu. mooy ko de raxasu sa loxo ba mu set. Mm. na nga moytu nuyoo yi. Mm. dajaloo yi ñu doon dajaloo yi ñu moytu. ñu moytu ko boo bu fekkee yàlla dogal na sax nga bugg a sëqat sax nga jël sa tëncu gi loxo tisoli def ko ci. Mm. wala nga yor sa musuwaar booy tubli nga tubli ko ci dem sànni ko ci poubelle yooyu yëpp dama jàpp ne. pourtant nekkul coronavirus rek moo war a tax loolu existe. loolu dafa war a lu bokk si ñun. ndaxte loolu yëpp cet la mm. te cet boobu yàlla daf ñu ko sant doomu aadama bu ne da nga war a set set boobu nag ndax dakk corona na dem waaye cet boobu na des kooku dama koy ñaan population bi mm. cet boobu na des ñun ñu des a kook mu des suñu jikko mm. jàpp ne lii ndënkaana la boo xam ne ñëw na ci ñun waaye day romb ndax tamit ci biir sensibilisation yi da nga ci doon wax ak ñun ñu naan ah fii Kaolack la tàngaayu Kaolack bi ak xorom bi yenn croyance yi yenn gëm-gëm yi te loolu nañ wax ne am na yoo xam ne waxu caaxaan la mhm. hmm. corona newul nit ku ñuul wala nit ku weex wala borom alal ak gis nañ ñi muy rey mhm. bu doon xarañte rek tubaab yi ñooñu gën a xarañ ñooñu ëpp matériel mhm. te gis nañ ni ñuy deyee moytu bi nag mooy que état bi dañuy salier initiative bi mu jël ci départ teel a tëj frontière ndax tamit tey boo gisee tey situation bi dem ba toll fii teel a tëj frontière bi mu tëj

waxuñ la nga dem tëri mais nan la fekk sa biir kër bul génnati sa biir kër yenn mun nga fay nekk di waxtaan li ngay waxtaan ba sa heure di jot nga jot waaye da cee am ñoo xam dañ ciy defante mhm. waaye tamit ci biir côté boobu noonu man maa ngi ciy doon ñaawlu tamit di nga xamante violence bi nga xam jot na ci am mhm. jàpp naa ne ci premier jour bi mhm. violence bi mënoon na ñàkk ba nga xamante ni loolu am na nga dajeeg ci koo xamante ni tey erreur moo tax wala waaye am na noo koy yeddee. Mm. am na noo koy waxalee am na noo koy sensibiliser. Mm. suba du delluwaat waaye du question si dóor yooyu noonu ñaaw ñaawteef gis nañ ko ci ak yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñun rafetlu wuñ ko. Mm. waaye nag di jàpp ne tey lii lu ñu yàlla teg la nattu la boo xam ne ñëw na mbas mi yàlla na fi yem waaye tamit nañ fagaru.

et ay jéego ba tey jii ah, koñ yu bari bari ah, mouvement bi wat fa Bongré seet ci comme danga ko waxee bustaan seet ci ak yu bëree bari ressources humaines bobu ngeen xamné am ko est ce qu'il yéen a koy utiliser parce que comme dañu l'aïe dajalo mais kay xarala yu yess yi mi ngi fi donc est ce qu'il yéen ngi utiliser moyens yoy pour que communication bi mëna jall à tous les niveaux mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ci lolu amna ben spot publicitaire ba nga xamante ni waaw euh, ñi ko ko euh, finaliser waaw えー ni pourquoi pas sax bu ko jaré xamna prochainement. waaw am na spot yu ñuy def. dañu dañ so dañ soxla sa voix. Ah. macha allah macha allah <laughs> macha allah dañ soxla sa voix. Uh-huh. amna na bu ñu def dans le cadre du programme euh, d'appui au développement économique et social du Sénégal. Mm-hmm. mi ngi dox euh, après journal. di ci remercier au passage le le le directeur. parce que plage horaire bu ñu jox. vraiment bu baax la. Mm-hmm. aussi am ay bonus ya nga xamante defal nañu ko mm-hmm. pour combattre. d'accord accord Kaolack Set Wecc am lu muy euh, am na lu bëgg conceptualiser dans ce mhm. sens mhm. nga xam ne mhm. dañ koy def euh, voix mu ànd ak ay image yaa ngi dégg dañ koy monter euh, mu ñëw ci li ñu war a éviter joxe loxo limiter déplacement yi éviter rassemblement yi def benn distanciation sociale booy sëqat boo mënul am mouchoir nga sëqat ci ruqu conc bi ah, porte takk masque masque bi nak mom le gars yi gëna a gën di wax. waaw moom la ñuy gën def focus. Mhm. Euh, parce que bo xolé euh, récemment raxas loxo bi plutôt ak masque bi mom lañuy gën di di wax. Mhm. mais yi ni yëpp amna solo. amna solo boy xol yenen ci réew yi mu gëna sonal. Mhm. xam nga dès le départ qui ci ni. France voilà dama lay tegal foofu sa baaraam rek danga may tegal foofu sa baaraam waxtu bi ñu ma waxoon ngir nag ma ibbi li nga téléphone bi jot mhm. euh, ci 88 628 97 97 wala 88 628 18 76 33 942 13 47 xam naa du ñàkk ah, seen naataango yi ñi nga xamante ne ñu ngi aju ci Kaolack seen wee ci bëgg a mhm. ah, def contribution wala également bëgg a samplaaj lépp lu mu ci mënti doon rek jaar leen ci buumu jokko yi nga xam ne min ngeen ko ah, ma baamuwaat ko 88 le 600 28 97 97 allô allô voilà beaucoup mi njëkk duggu dugg euh, allez-y ñu wéy mhm. d'accord d'accord euh, boy xol français yi li leen gëna a sonal mhm. dès le départ waaw xam nga élection municipale yi dañu waxon duñ ko aj am na ko allô salam allo allô salam alaykoum maa ngi ziar bu baax. maa ngi lay ziar bu baax sang bi kenn la. Euh, Mouhamed Ndiaye lañ ko wax. Ah. Passoir. ah d'accord Mohamed Ndiaye membre waaw Mohamed Ndiaye waaw kay Mohamed Ndiaye passoir nuyul ma sama waa koñ mi ngi noonu euh, ci 88 628 97 97 ah. d' accord waaw leen gënoon a sonal dañu négligé woon port de masque bi. waaw te da ngay dem dans les pays asiatiques. ah allo. Ah. allo. allo. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. salam waaw sëñ bi na ngeen def. na ngeen def ñu ngi ziar. ñu ngi Mouhamed Diop Daaru Habib. Eh, Mouhamed Diop ani waa Daaru Habib. waaw ñu ngi fi ñu ngi sant yàlla. ñu ngi leen di nuyu bu baax macha allah. alhamdulilah alhamdulilah. Uh-huh. soxna si yal na yàlla saafara ñu jàngoro ji waay. amiin allah amiin yaa rabbi yàlla. barke Seex Tijaan barke Baay. amiin waay amiin waay. mboolem ku bàyyi gërëm yaa rabbi. ndeysaan amiin yaa rabbi. ñu ngi siyaare xalifa bi. Uh-huh. di ko ñaanloo yàlla bu baax. ndeysaan. di ñaanloo Seexna Ahmed Tijaan. ndeysaan. imaam. Mhm, imaam Cheikh. ñu ngi yal na yàlla nangu ziar. amiin di leen ñaanloo yàlla ñun ñuy ñaanal rek. wallaay wallaay ñu ñaan. lépp ñoom ñun ñoom lañ yaakaar. ñun ñuy ñaanal rek. wallaay wallaay. ñu siyaare nag bu baax. jërëjëf Sali sama jigéen Salimata Sall. waaw Sali. wallaay gën naa ko dégg. ñàkkul ñàkkul mi ngi lay dégg sax ñàkkul mi ngi lay dégg sax. <laughs> wallaay waaye maa ngi koy nuyu baax. waaw kay jërëjëf sang bi kontaan nañu. soxna si daal lii yàlla nañu ci yàlla musal musal. ci képp waaw musal ci amin amin yaa rabbi. jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf jërëjëf kay jërëjëf kontaan nañu lool papa. mi ngi noonu nuyul ñu waa Daaru Habibi ci 88 allo. allo salaamaaleykum.

quand même foofu la. Mm-hmm. foofu la. Mm-hmm. Kaolack doomu Kaolack ñoo koy defal. Mm-hmm. mais keneen di jëyee ko feneen ñoo defal la Kaolack. déedéet déedéet. donc euh, ñoom bi ñu amee. xelu organisé wu. dañ koy sante yàlla. doole leen di ñaax. jërëjëf. Euh, maire bi leen di jàppale. diñ ko félicité ah. parce que moom dañuy liggéeyal. moom moo ko waroon na def. dem ci ñoom. Mm-hmm. épaulé leen ànd ak ñoom mm-hmm. liggéey mm-hmm. kon boog ñoom suñu toogee di liggéey ba moom mu ñëw fekk ci leen moom dañ koy encouragé dañ koy encouragé ne kon na gën a góorgóorlu gën leen a jàppale euh, ñu jéem a contribuer <coughs> euh, gis nañ kaw euh, Kaolack soo ko tuddee rek xel yi daal di dem ci Medina Mbaba mm-hmm. mm-hmm. euh, dem ci Jalañ mm-hmm. Medina Mbaba euh, Jalañ u daral su ci sa xel demee rek ñaari canal yooyu moo tax c'est vrai les canaux ouvert c'est euh, ñu jël seen déversoir yëpp xëpp ko ci biir canalisation yooyu te fi ñu toll nii opération pré hivernale dafa war a taxaw parce que léegi tey nawet bi te gis nañu à chaque fois que bi ñëw. Mm-hmm. li muy jural askan wi. Mm-hmm. dëgg la tey tey tey soo fa rombee. Mm-hmm. set ba fay génn ma subhanallah. aywa donc euh, mu taw ci kawam. ndox mi dugg ci kër yi. Euh, loraange gi day gën a bëri. bon ma ñaan la di affaire di leen laaj. ñoom par rapport à leur programme. lan la gis euh, pour ñaari canal yooyu. pour ñaari nag. yàgg nañ dégg ñu naan maire bi kooku bokkut ci ay programme am waaw mais setal ko itamit hmm. war na mën a nekk ci programme am d'accord ñoom dinañ la tontu jéem xaw a kii rek yooyu waaw dinañ la tontu voilà lu loolu weesoo <laughs> pour ma gàttal waaw ma maa ngi leen di laaj ñoom uh-huh. ban stratégie hmm. la jël hmm. su dee jël nañ ko ba pare baax na suñ ko jël tamit muy suggestion waaw maanaam euh, au niveau des euh, différents quartiers

allo waaw allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi na ngeen def. waaye sant yàlla bu baax rek. ça va alhamdulilah. waaw man la biiru ñu gën maa xam ci général. waa général membre Kaolack Set Wecc waaw ah, xanaa yaay généralu Kaolack Set Wecc <laughs> waaw waaw man maay généralu Kaolack Set Wecc loolu la kay. waaw ndax ñun moom saay ñun fu tilim rek la ñu bañ a gis quoi Kaolack dañoo bëgg mu set wecc. ndeysaan. waaw ñaar ñooñu toog nag gërëmal ma leen santal ma leen ne leen ñun. Hmm. xaaruñ xaaruñ guddi xaaruñ bëccëg xaaruñ kenn ku ñu woo sa ruq ak sa gox ñun ñëw foofu fekk la fa waaye ko ba mu set wecc. macha allah moo ñu ñor moo ñu góor jàpp ci góor lañ xam. góor jàpp ci góor. jigéen jàpp ci jigéen. très bien. waaw ñun bàyyiwuñ fenn. Uh-huh. xamewuñ yi xamewuñ jullit xamewuñ kenn ñun ku ñu woo ñu liggéeyal am na solo général am na solo. merci dem nañ dem nañ fu ci xale yi fi ñuy nekk. Ah, macha allah loolu rafet na fu ne dem nañ fa. soo yaakaar. district Kaolack ñaari waajur yi wax nii. waaw. chaque fin du mois ñu song ko. loxati ko ba mu set dóor daanu. d'accord rafet na. taxaaruñ ci dërëmu kenn. macha allah macha allah. di gërëm maram la maire nag mu ngi jàppale bu baax waaye tamit jàppale bi jàppale bi ñun dañ koy delloo njukkal. parce que dañoo nekk ay ndaw. doon liggéey moom mu di jàppale. macha allah. kon nag amuñ lenn luñ ko fayee lu wàcc ci terrain bi futteeku. damay ñaaxaat ndaw maram la maire yi nga xamante ne ñi ngi Kaolack. ñu futteeku jàppale madame la maire wàcc ci terrain bi ñu ñoo ko mën setal hmm. ndax loolu rafet na trop damay gërëm nag di sant bu baax sama gars yi. d'accord merci beaucoup général. voilà waxtu bi moo ñuy bëgg a xooj ah, donc mi ngi noonu général. donc ci Kaolack seen wécceelu. waaw salaamaaleykum. waaw ah, l'homme d'ici. waaw soxna Ren. maa ngi lay ziar. waaw baa yaa ngi si jàmm rek. maa ngi sant bu baax macha allah. Ah, waa ñun de kontaan nañu. ah macha allah parce que Kaolack set wecc moom. situation hmm. bu jaar yoon la. ndeysaan ndeysaan. franchement ah, parce que tey jii hmm. réew mi pour ñu setal ko waruñu ci xaar kenn. ndeysaan. mais nag dafa am benn appel bu may lancé. muy ban. c'est union qui fait la force. Hmm. tey jii nii Kaolack set wecc. est-ce que ñoom xalaatuñ. ñu jéem a collaborer ak GIE tey aussi ñuy lancé appel mm-hmm. ñoom tey gërëm nañ Mariama Sarr mu leen di jàppale mm-hmm. mais tamit dama bëggoon tamit madame la maire mu gën a taxawaaye njaaxaanaay mm-hmm. parce que tey Kaolack set wecc mairie bi la ñuy liggéeyal GDO e mairie bi la ñuy liggéey la preuve que ne mus na am ñu romb ne waa mais Mariama Sarr mu ngi bale dëkk bi ah yaa comprendre xam nga gars yi ñu leen de ñun la ñun la GDO e mais kon sotti si def ci la kon nag ñuy ñaan Mariama Sarr ni muy jàppalee tey Kaolack set wecc mm. nañ jël GDO mm-hmm. ak tey Kaolack set wecc ñu nekk benn collaboration maa ngi ñaan grand Karamoko d'accord yéen mi toog foofu noonu. Hmm. ngeen gën a associé ngeen gën a dëgëral. Thiam mi hmm. hmm. que tey nag. waaw mbalit ñun rek ñoo ko mën a jëlee ah. wala ñun rek ñoo ko fi mën jëlee ñun tey askan bi. merci beaucoup voilà l'homme d'ici mi ngi noonu toujours égal à lui-même <laughs> l'homme d'ici numéro un voilà ñu bàyyi la Thiam fi nga nekkoon am na solo laata keneen di duggaat ah keneen dugg na allo. <laughs> allo asalaamaaleykum aleykum Sidi Fall. waaw Sidi fooy wootee. Kaolack Set Wecc. ah waa Kaolack Set Wecc noo def. colonel colonel colonel Kaolack Set Wecc. <laughs> dugg na colonel dugg. waa gis nga. waaw ñun xoolal bi dañ koy lekk. <laughs> macha allah. mais di euh. leen jaajëfal émission bi rafet na. jërëjëf jërëjëf. di nuyu sama ñaari grand yi toog. Mhm. di leen wax ja fu teg seen loxo foofu ñu seen gannaaw. waaw.

waaw général Birou moo dellusiwaat. ah waaw général ñu gàttal rek waxtu bi moo xaw a lii. Mhm. allez waaw waaw ñu ngi jégalu waaw mais dañu bëgg leeral tuuti rek. waaw kaw la am lu ñu baaxoo quoi. muy lan. waaw ñun dañoo nekk ay jàmbaar yoo xamante ne nekk ay ndaw yoo xam dañoo gëm suñu bopp bëgg suñ dëkk bi. Mhm. te dañuy liggéey nag ñun ñëpp xam ñu ci dëkk bi. Mhm. waaw di liggéey mais su dimanche doo ñu xàmmee ndax dañuy nekk ci terrain bi. wallay wallay suñu jàmm boobu ngay gis noonu bu Alfayda nekkoon télé incha allahu rabi balaa day nekk télé. dinañ la woon ay image Kaolack Senelec ba nga naan non non parce que Kaolack waaye dañoo xaw am lu ñu umpale tuuti. ndeysaan. waaw mais di di leen wax ne leen ñu ngi seen ginnaaw daal di jàpp rek. ñun Kaolack moo ñu ñor macha allah macha allah macha allah Kaolack moo ñu ñor mi ngi noonu. xamna dañuy tegandi lox fofu rek ah. allez-y Thiam. Euh, hmm? d'accord le sensibilisation fi nga nekkoon spot bi yaa ngi woon ci spot bi. nga xamante wala ci spot bi. Hmm. Euh, peut-être après kon ñu ñëw ci. interpellé euh, ah, kii quoi hmm. réaction yi quoi. spot bobu après dana danañ ko mëna véhiculer. ci ci réseaux sociaux yi. nga xam en wolof lay doon. Ah am peut-être mënuñ dégg. mais simple. Mm-hmm. image rek. défilé daañ comprendre. aussi daañ mën a xam. Mm-hmm. ay sensibilisation kese la. ay gestes suis simple la. Mm-hmm. mais yu mag lool ci njëriñ. ay je suis simple booy xool gestes yi liñ lay wax yépp nga koy éviter. boo koy boo ko ak xaleel. tout tànk da ngay xool ay biir buy daw. ko yomb ah ay feebar yu sew sewaat yi di ko yomb ñun dañ di ay mag rek suñ mm. dem ba suñu organisme xaw a xaw a xaw a résistant quoi mm. mais yii dafa war ci ñun alors dafa war daal loolu moom lañ dañ koy gën a sensibiliser mm. population yi mm-hmm. yàlla bu ñu am nag benn cas ba léegi déggaguñu ko kaw nag te li ñu jot a am Sénégal euh, am nañ ci yaakaar ne mm-hmm. wax dëgg gaay ñi ngi ci def lu ñu mën cas yi ñu ci am yàlla na leen yàlla may ñu mën ko solutionner d'accord laata laata ñuy jàll yaa ngi doon ci wax. ci tontu Waly Sow ah? waaw na hmm? dalal xelam. waaw parce que Medina Mbaba. Hmm. xam naa peut-être kii bi la sax ah, épidémie. waaw corona bi mais il a raison. Hmm. période bi lañ daan curé. caniveau yi waaw opération pré-hivernale yi. ñun dañ daan def bu ko gars yi curé ba noppi. ñu jël rebord euh, kii liñ génnee ci rebord bi yëpp. ñu ñëw. dajale ko. Euh, acheminé ko. loolu jot nañ ko def ak ñoom xalifa nduur di leen nuyu au passage. Euh, répondant yi wax nak au niveau des quartiers. parce que mhm. Kaolack Set Wecc pratiquement 45 quartiers yi composé. fu ci nekk ndaw da fay jóge mm. mais yakarna né ne loolu dafay gën a am solo. ñu mm. gën ko structurer de sorte que. Mm. quartier bu ci nekk. hein war nañ fu mëna am élément bu nekk ci biir conseil consultatif bi wala di and ak délégué bi. ngir euh, mëna animer bu baax quartier puisque composition bobu mom mi ngi koy wax xamna du ñak ngeen jege jiko ko. mais bien sûr da nga ñu jox voilà voilà incha du ñak mom d'habitude day faral di wootee uh, fi ci radio bi donc mi ngi nonu uh, ci Alfayda ba tey rek ñi ngi ànd ak waa mouvement uh, Kaolack Set Wecc mu melni ki nak l'émission émission tire à sa fin wali Massa du mu def nak dudul dul Amadou jox le kaddu rek par rapport ak sensibilisation bi sa kaddu lan lay doon par rapport ak message bi nga xamantene ne yi war nañu ko jël momale ko sen ak boppam ah. ngir nak ñun ñëpp ñu daldi andando daniel mais également jëlé fi pandémie bi wala jangoro ji di coronavirus waaw dañuy sant yàlla bu baax a baax. Mm. ci émission bi ni nga xam ne moom la tëddee. Mm-hmm. kàddu gi yëpp nag kàddu sensibilisation la. te duñ mm-hmm. jóge di sensibiliser. Ah. mooy que population bi tey nañu xam ne tey feebar bi ñëw yàlla moo ko dogal mu nekk mbas boo xam ne daanu na suñu kaw. waaye ñun ñëpp bu ñu siggee jóg taxaw xeex ko. Mm. mooy que moytu yi nga xamante ni tere nañ ko. Mm. saa su ne nañuy raxasu mooy saa su ne nañ moytu. joxe loxo yi. loxo yi. waaye tamit dajaloo yi nga xamante ni amul njëriñ ñu dindi ko. dajaloo moom bañ nañ ba dañ ko tere. waaye tamit ci yenn endroit yi nga xam ne comme ni ni ñuy demee ci marché yeeg yooyu. Mm. bu ñuy dem ñu mun a fagandiku. fagandiku fagandiku soo munee takk sa masque. Mm. wala soo munee moytu yenn distance yeeg yooyu. day jafe. Mm. waaye tamit surtout ñu xam ne mbir mi daal set la laaj. te bu ñu setee rek yàlla mun lañ ci musal. ñu jàpp ne. xeex nag xeex la boo xam ne ñëpp la. xeexu ñëpp autorité yi. Mm. ku nekk mu ngi béy waaram. Mm. waaye di tamit di leen dolliwaat di ñaan. Mm. ndimbal bi nga xamante ni tey ñu askan bi mu ngi koy laaj te président Macky Sall jël ci décision yu am importance. pour ñu delloo ko ci askan bi ñi nga xamante ñuy autorité yi. ñu jox leen ko. ngelawaay ci séddale ba. nañu xool ni nga xamante ni man de su ma sañoon. dañu jël mbir mi dënk ko armée bi. armée bi armée bi ànd ak ñoom ndaxte tamit. bu ñu jëlee exemple tey Kaolack. 45 mm-hmm. quartiers yi. Mm-hmm. bu ñu ne gouverneur lañ jox lépp pour mu séddale. Mm-hmm. gouverneur bu jëlee tey jël benn quartier tey nga ne tey Betuwaar. nga ne Betuwaar am na chef de quartier am na conseil de quartier chef euh, président ASC e banque fa keneen ñoom ñu tey ñu nekk benn comité. waaw ànd ak armée bi. ñuy dugg kër par kër. yaakaar naa ñëpp dinañ jot. buñ ko defee ci quartier yëpp man de proposition boo xamante ni loolu. bëggoon naa gouverneur dégg ko te incha allah dinañ dem ñu loolu daal buñ ko defoon nañ ko population bi yëg ko ci boppam ndaxte loolu dañ ko génnee. Mm. pour population bi jot ko na ko population bi jot. yeneen autorités yi nag ñoom ñëpp ku nekk génnee na am lu mu dimbale mm. jox ko gouverneur. waaye tamit mbir mi daal. Mm. doyul ku mun a dolli rek. na dolli encore une fois. foofu lañ doon tëjee mbir mi. di leen di gërëm di leen sant di naan Kaolack set wecce ngi nii. tëjul buntam. képp ku mu intéressé képp koo xamante ne set ñor na la. wala nga am activité nga gis sa koñ ne fii dafa tilim. Mm. boo ñu woowee ñun dinañ ñëw xooluñ ma Samba xooluñ ma Demba. Kaolack moo ñu ñor. Mm. Kaolack comme ni ñu koy faral di waxee ensemble pour bien faire. Mm. bu ñu laxasaayoo suñuy goj bu ñu doolee suñuy boolee suñuy force luñ bëgg daan ko. d'accord Kaolack set wecc ca kaw ca kanam ci dugal. mi ngi noonu Kaolack set wecc mi ngi noonu nañu boole suñuy doole nañu boole suñuy xel ak suñuy xalaat su ko defee tamit Kaolack lu mu song rek daal di koy daan euh, monsieur Thiam am na solo lan ngay wax yi tamit par rapport ak message boo xamante ne peut-être euh, a accentuer wu

c'est-à-dire lini ñu nek tay mm-hmm. moom le geste normal quotidien li ñu war li wara am li wara am am. Mm-hmm. te dafa am lu sétlu seetlu. Mm-hmm. ci euh, couvre-feu bi. waxuma nak teel a bi euh, sama dam, damay bañ dam ja xëc sama nopp bi <laughs> teel a tëj euh, boutique commerçant yi mais couvre-feu bi da ngay xol lepp ne tek lepp dal. fay da ngay dox sax dajeek ay nit mais pourquoi pas sax. ñukoy am li chaque mois. Mm. kon amna ci ay gestes ya nga xamanteni vraiment dañ ci dañ ci sante mm. tay le président Macky Sall xamal que ne que nous sommes engagés derrière lui. Mm. vraiment kontaan nañ ci ni ñu mbir mi. dès le départ parce que amna na ñu ci doon taxawé rek. je pense que mbir euh, feebar bi dana gën a law. waye li ma jël à cœur aussi. bokk na ci euh, goney Kaolack ni ñu war a mën a boole seeni loxo. Mm. loolu lu ma lu lu ma ñor la ko mm. ngoone mm. parce que ñun Saalum Saalum dañ ñu bàkkee euh, mën a defante entre ñun. te heure bi laaju ko. Saalum war na mën a dépasser fii. waroon na ko mën a dépasser war na ko mën a dépasser. loolu nag ci kaw ku ci nekk jox moroomam cër. te lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca. ku ne war na mën a sóob loxoom ci lépp lii mm-hmm. parce que lu ñu bokk la. waaw et GIEDO boobu daañu ci gën a bàyyi xel quoi voilà ñu woon ci euh, waxtu euh, jeex na tàkk ah. jaajëfal ko bu baax a baax moom Waly Massah Seck moo fare woon ci wàllum xalal xalal rek gi comme ni ñu koy waxee waaye yéen également jaajëfal leen bu baax a baax ah. Ah, ngeen si moom euh, Thiam waaye également ki nga xamante ne rek moo di Baboy ñu gën koo xam ci Amadou Tidiane loo waxtaan wi amoon na solo ak waa mouvement Kaolack Set Wecc Ngoone Ndiaye ren madame Kane doon addu ngeen di teewlu waaye tamit nag jaajëfal ko moom Mouhamadou Khalil yi ak i tamit xaaji libaas mbay ñi nekkee woon ci wàllum internet bi mbokk yi sant leen gërëm leen jaajëfal leen bu baax a baax lu jiwu ba jeexul jógu fa alfayda mi ngi fi jógu fi jàngeen jëfati yow demal bàyyi ñooy billaay corona virus